sant suñu borom yaa ngi jàmm. alhamdulilah dama gisoon benn information ci Aliou Cissé. Mhm. moom doon leerlu quoi. waaw effectivement. ok fan la. Euh, Maabo la commune bu Maabo. waaw ban dëkk la exact. biir Maabo ci boppam stade ah, municipal bu Boniface Diouf. ok ok ok. wala amoon final bu ñu ko tudde woon. waay. tunuwaar la woon sa waaw. voilà ñu tuddee ko ko ginnaaw biñ ko ko tuddee nag mu def délégation ak militant militante am. waaw wu dem fa bi mu demee yobu somme de un million ak huit peeru mayo mhm. ginnaaw bi match bi jeexee yéex na fa dem parce que ay dix la dem. Mhm. après match bi nag voilà mu gars yi jël discours. Mhm. biñ paree ba moom mu war def discours ñu jox ko micro bi ba mu nuyoo siyaare. Hmm. bi mu nuyoo sax bay remercier ASC yi hmm. voilà ci la benn xeer jóge daal fu sori hmm. ñëw xamuñu fan la jóge parce que boobu xamuñu lëndam ok voilà dal di dal di ñëw dal di ñëw ñu sànni ko ko ok voilà loolu daal lañ ci lañ ci am ko xamuñu nag xeer bi fan la fan la jógee surtout ok waaw moom ñii ne leen la ñii ne ñu xeer la parce que foofu sécurité bi amoon na. ok ok waaw. mais xamuñu daal lan la finalement mu gaañ ko. ñu ah. mujj yóbbu ko hôpital. ok daal di ko ñaw ak defar faj ko. Ah. mais mujj nañ ko livré mu ngi këram. ok dellu na këram. voilà dellu na këram actuellement nii. ok ok. noonu la demee daal kenn hmm. xamul daal mbir mi moom. waaw. xam naa rek ñii nañ ne politique la voilà ñii nañ ne mais politique daal moo ci ëpp parce que ñëpp loolu lañ wax parce que après max la te discours yi passé na ba mu des ki nga xam ne mooy maire bi. te la en même temps moom candidat la ci député yi. ah ok candidat la ci gox bi. ci gox bi quoi. kan ban liste la bokk. Euh, farlu la demee. farlu. moo ko moom maire de Louga. ok ok ok. moom la moom la demee récipité farlu la demee quoi. ok à part loolu amul benn menace boo xam ne amoon na ko wala comme ça. waaw ci ay wax daal yiñ ci sonn dégg en tant que katu xibaar. Mhm. yiñ ci sonn dégg bi ñu defee suñu enquête. nañ mhm. ne am na daal ku ñu cité. Mhm. ne waxoon na ne bu maire di wax dina ko xam. am na ku ci ñoom si biñ sonn waxoon na bu di wax dina ok ñoo bokk camp. voilà bokkuñu camp. ok ki waxoon loolu. mais mu amoon na accès ci programme bi. waaw parce que ñoom est-ce que du seen équipe moo doon football sax parce que xam nga match bu jeexee en général. ñëpp dañuy dagg dajaloo ci kanam tribune bi. ok ok parce que booba match bi jeex na doo xàmmee kenn ñëpp dañuy daje sécurité yi ok. mais en général espace bi du yaatu ba yegg ci yoon. Ah ah voilà léegi moom bi muy wax ci kaw turbine bi la taxaw parce que tamit sécurité bi moo doon bañ mu wàcc comme. ok parce que affaire bi xawoon na match bi ñoom ñaawoon nañ njort ne dina yàqu. ok voilà ba maire finalement sax démb waxoon na ne match bi fomm. ok ok. voilà ci biir daal xam naa la gars yi fexe ba mu amaat. Mm-hmm. voilà mais ñaawoon nañ njort ne même que bu yàqoo ci biir match bi. après euh, buy ñibbi euh, caravane mën na am problème ak. booy beneen camp bi nekk foofu. ok parce que wàllum en daal laa ciy ñoom dañ ko en ay wax. ok ñan la fi nekkal comme adversaire. waaw ñu si ëpp daal waa Pastef ñi ñu ñu ñoom ñaar ñooy ñooy ñooy opposition bi ñu ñooy comment dirais priorité quoi ñooy euh, comment dirais ñu favori. ok ok. waaw mooy Aliou ak euh, Pastef bi mais Pastef bi la candidat bi moom Birkilane la dëkk. ok ok mais. dafay am xam nga ay représentant ok ok voilà ci commune Maabo bi ok campagne bi kii bi euh, final bi ñaat euh, équipe ban ban la woon ñaari équipe yëpp biir Maabo la ok waaw ñaari équipe yëpp màgg daan yaakaar naa ak ñaari équipe yëpp biir Maabo la la xewee tournoi la woon biir Maabo prix waa zone organisé woon ko mhm. voilà ñu ñu tuddee ko ko rek moom dafa ñëw en tant que moo ko tëgg dañ ko organiser tuddee ko ko mu ñëw indi teranga ok voilà bi mu ñëw ñaawoon na njort parce que démb dafa demoon kasaas ci guddi gi mm-hmm. ak maabo pare fa demee guddi gi euh, yëngu xawoon na fa am ñenn boy yi naan sonko sonko mm-hmm. voilà mais finalement mujjoon na daf discours bu gàtt la foofu moom daf na discours mais ci biir oto bi la woon ok cinq minutes matu sax deux minutes mu terminé. ok sécurité bi accompagné ko sécurité am ak convoi ba ñu di génn dëkk bi te ay wax sax oto bi mujj booy sonn nañ ko sànni xeer. ok ba mu oto oto bi mujj ci caravane. ok waaw. fàttali ñu tur bi. Euh, kan monsieur Aliou Cissé. waay waay waay maire bi quoi. ok ok waaw non non yow yow yow mi ñu waxal quoi. voilà man Cissé laa tudd nekk léegi ci ok ok. voilà parce que dañoo am équipe bu topp campagne am en même temps peut-être loolu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 ne góor ngóoraa tax